Euh, politique la rek. mais ku xam Ousmane Sonko. Euh, xam na ne nit ku jub la. nit la koo xamante ne mbokk mi nuñ koy seedee man ci mbokk boobu ci laay bokk. musuma ko xamal loo xamante ne euh, lu ñaaw musuma ko xamal loo xamante lu bon alxuraan laa ko xamale ak ak ak liggéey waaw te nag man la koo xamante ne man mun naa ko seede parce que maa ngi jóge kër gi léegi léegi nii waxtaan nañu. waxtaan ngeen. Euh, dalal na sama xel. Mhm. mu ne ma demal. Mhm. mu ne ma bëgguma sax nga taxaw fii. Mhm. yaa ngi demoon léegi soo soo toogee kër gi tuuti rek. Euh, mun nga ñibbi. waaw mu ne ma waxal sa papa. nga dalal seen xel nga dalal seen ñoom ñëpp seen xel. xëy na nag Sénégal. Euh, il faut ko ñu xool bu baax mhm. euh, suñu réew mi mhm. suñu réew mi dafa nekk réew moo xamante ne mhm. il faut ko ñun ñëpp ñu taxaw ñu jubante ko parce que réew la loo xamante ne ñun jeunesse yi ñun ñoo war a jóg parce que mag yi fu mu toll nii seen bos jeex na waaw réew la loo xamante ne amul musul am jeer te nag ñaanuma yàlla aussi tam mu am jeer mais réew la boo xam ne suñu jeer loo xamante ne euh, suñu jeer bi mooy ku ñëw rek jël suñu milliards yóbbu ku jël suñu milliards yóbbu mooy suñu première guerre boo xam ne bu gën a metti mhm. yaa ngi dégg ma la ñun sama olof nag seetul quoi waaw sama olof bi seetul man li ngay wax ay kalamay leer nañu rek te nit ñaa ngi waaw sama olof seetul musuma feeñ ay télé dëgg tey foo foo ma wax ma genn sama kaddu du ma si ruus dara dëgg la waaw il faut que aussi tamit sama wax bi tamit mhm. euh, du ñaaw du ma saaga kenn dëgg la ma wax kenn lu ñaaw mhm. xam naa ni Macky Sall mhm. na xool bu baax lu muy def mu xam na ne anniversaire am bi ne mus Ablaye Wade musu ko def lii Abdoulaye Wade dafa jaakaaroo ak moom jàmmaaroo ak moom ba mu ko gañee mu xam na ne adversaire moom tamit na ñeme loolu mu jaakaar ak moom ñoom ñu def combat loolu mooy politique mais politique la boo xamante ne ku ñëw rek nga bëgg ko tëj xëy na nga xam ne ne euh, lii nii dafa ñaaw rek Sénégal ñëpp xam nañ bu baax lii euh, loo xamante ne euh, complot la complot Sénégal li yëpp war na mun a deñ kilifa diine yi aussi tamit maay wax ak ñoom kilifa diine yi ñun seen kàddu lañ gën a respecté président man loolu mun naa ko wax kilifa diine bu ci wax ñun nañ lay déglu lu mel nii kilifa diine yi fokk ngeen ciy wax. mais tey euh, comme yaa ak Sonko yéen a nekkoon ci biir mais tey moom bu ñu lii tey ah, xale yi tey génn di reyante ngir moom ah ay xale yoo xam ne dañu a blessé tey loolu nan la def Sonko tey ci biir kër gi. ci biir kër gi Sonko fu mu toll nii moom xam na bu baax. Mhm. moom jeunesse bi moo tax mu Sénégal moo tax mu jóg parce que dafa am fu mu nekkoon foo xamante ne foofu xaalis réew mi fa lay jaar su ko neexoon falay nekk falay nekk di di luubal xaalis président bi lu mu ko wax loolu waaw lay wax léegi moom day équipé moom boppam rek mais Sénégal moo ko ñor Sénégal nit nag sa réew bu bu la ñoree da lay jaral lu ne da lay jaral nga bàyyi sa liggéey yëpp da lay jaral sa bakkan yaa ngi dégg looloo fu mu toll nii instant yi nii mu ngi leen gis mu ngi gis pop ci euh, public yëpp mu ngi gis lépp muy si balcon bi noonu si fenêtre bi si vitre bi di xool waaw di xool parce que fu mu toll nii moom bu ko sañoon lii du am day day nekk réew mi day nekk jàmm waaw moom loolu la bëgg quoi réew mi mu am jàmm rek mu am jàmm merci beaucoup jërëjëf loolu la merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup jàmm ji info point net informer éduquer et divertir dans la